te te li am ci combat bi mësul am ci combat parce que Pikine képp dañoo bokk dajaloo def Pikine authentique Pikine authentique mësul am def nañ fi cent pour cent Pikine cent pour cent Pikine mais Pikine authentique dañoo seet ca euh, euh, re parce que garab boo ko dee suuxat doo jël euh, ndox bi di ko wis ci kaw xob yi reen ngay ngay ngay suuxat mu meñ mu mu jebbi meññ ci kaw moo tax combat bi dafay combat boo xam ne man Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi xam nga lu may wax ko joom daanu